ñu ngi am mbégte dalal meeru Gningue moo jiitee conseil d' administration bu Petrosen euh, Holding nekk itam maire Mérina Dakar ñu ngi lay nuyu di am mbégte dalal la. waaw euh, Fatou maa ngi lay fay bu baax bi am mbégte ñëw ci suba teel bi ñëw ci sa émission. Euh, di nuyu auditeurs u mi FM yëpp. Euh, di nuyu tam waa Sénégal yëpp. ñu tàmbalee jaale waa Sénégal si tiis bu dal si kaw ñëpp muy accident bu métti bi waral tey président décrété ñetti fanu dëj boo xam ne réew mi yëpp ñoo koy bokk est-ce que tamit jotul ñu jël ay mesures yu gën a sérieux ci wàllu accident yi ndax lu muy def si jéeya bëri na trop. waaw xam nga jël nañu ay mesures yu bare parce que boo xoolee man bi ma nekkee assemblée nationale def nañ fa li ñu tuddee réforme code d la route. ba indi même loi boo xam ne dafa war a dugal léegi le permis à point euh, jël ci tam ay mattukaay yu bëri mais faatu réew mi ñun ñëpp war nañu seetaat suñu bopp ñu seetaat suñu bopp damay faral di wax toujours ni boo bëggee xam nu réew mi mel ñaare da jël oto rek nga dugg ci boo duggee ci oto di dem gis nit ñi nu ñuy dawale ak nu ñuy def dangay ngay am tiitaange mooy nag loi yi lu mu dëgër dëgër dëgër su fekkee ne ñun suñu bopp nekkatuñu ay nit parce que nit nit mooy lan mooy nga xam ni lii dañ la ko aaye nga bañ ko def nga xam ni lii soo ko defee dangay ngay indil jéeya keneen nga xam ni danga war a taxaw nga taxaw mais bu fekkee nit du respecté code de la route su dul dafa gis gendarme bu taxaw ci kaw tali bi wala mu gis alkaati bu taxaw ça veut dire bu boobaa war nañu seetaat suñu bopp. ah jàpp naa ni nag accident moom kenn du ko bëggal sa bopp dafay ñëw rek buy dal sa kaw danga nga naan da nga daan dangay foog ni waru woon a dal sa kaw dafa ñëw rek ni xës dal sa kow mais dañuy wax ni ji boo gis boo xoolee rek di fa fekk tànk borom cest na koo xamee ni la mu waroon a def defu ko loolu moo tax mu indi jee te damay wax ni lii accident li tali bi di rey jamono yi amul benn feebar bu koy rey ci Sénégal kon nag war nañu seetaat suñu bopp parce que bu fekkee ay nit ñoo war a yor tali bi ñuy def ay investissement di defar ay autoroute di yokkat tali yi di defaraat tali yi oto yi ñu war ci def ci contrôle bi nga xamee war nañ ko ci def li ci des nit ñi la jàpp naa nag ñaari yi moom il faut ñu xoolaat ko il faut ñu xoolaat contrôle yi ba xam li ñuy contrôler ak ñi ñuy jox autorisation ndax mérité nañ ko il faut itam chauffeur yi nga xam ne dañuy yàpp ay nit ñu xam ne yabuñu ay bàyyi ma ay doomu aadama la ñu yab kaar boo xamee dafay jël juróom-benn fukki nit doo ko jox xale bu am ñaar fukki at wala fanweeri at nga xamee ni xam amagul responsabilité yooyu dañ ko war a xool loolu nag feeg defuñu ko jéey duñ fi jóg léegi nag il faut que itam bu yi amee ñu xam ne nañu xolaat suñu bopp ba pare li ci yoon wax itam ñu def ko parce que man jàpp naa ni lool rek moo ci mën a génne. Mhm. alors ñu tàmbali waxtaan bi ak euh, yokkute yi ñu wax ci njëgu hydrocarbures yi ak euh, courant bi euh, muy loo xam ne ñàkkul dafa laal àdduna bi yépp ndax jafe-jafe pétrole ak gaz moom dafa dafa law tey mhm. mais yow mi ci sa xel màcc naka nga ko mën a expliquer ñi lay déglu peut-être te xamuñu dëgg-dëgg mhm. naka la yooyu secteur di di doxee. waaw maanaam ci gàttal dafa am ñaari xew-xew yu am. yoo xamee ni dafa nekk crise bi nga xamee dafa am ci àdduna bi te li ko gën a yokk mooy guerre bi nga xamee dafa am diggante Russie ak Ukraine xam nga tey dañuy wax guerre Russie ak Ukraine mais boo xoolee tey ni guerre bi di doxe di nga xam ne Europe yëpp daanaka ñi ngi ci fitna ñi ngi ci jafe-jafe loolu nag soo xoolee lu Russie tollu ci wàllu gaz ak ci wàllu pétrole dangay gis ni dafa indi yokk yokk bu mag ci njëgu pétrole bi ah pays dëkk bu mel ni Sénégal nag di xaar pour génne pétrole am incha allah ci at bii ñu ñëw ah, moom li ko doon neex sax mooy pétrole bi yéeg parce que bu pétrole bi yéegee xaalisam day gën a bare waaye egguñu foofu diggante bii ñu fi nekk nag dafa indi coono bu bare bare bare Sénégal nag ci boppam ñu jëloon lu tolloog ñu juróom-ñaari téeméer ak juróom fukki milliards ci at bi ñu génn di ko jàppale nit ñi pour que produit pétrole bi maanaam gasoil bi ak super bi ak euh, gaz butane bi yooyu ñu bañ yokk ak électricité bi mais nag dem nañu ba ci biir ñu gis ni loolu dafa diis te Sénégal su fekkee dañu bëgg président comme ni mu ko bëggee sénégalais fu mu nekk ci réew mi bu fekkee dafa war a am courant mu am courant su fekkee dafa am war a am yoon mu am yoon ñu ne waaw li nga xam ne dañ koy jàppale jëndkatu essence yi te jëndkatu essence yi ak jëndkatu euh, euh, courant yi daf ci am ñoo xame ni dëgg la seen doole dafa néew mais am na ci ñoo xam wax dëgg yàlla seen doole euh, waxuma néewul waaye nag am na duñu mën ñu ne ñooñu nag nañu wàññi li ñu leen doon jàppale kon état bi bàyyiwul li mu leen doon jàppale parce que su fekkoon def ko bàyyi kon gasoil bi tey du nekk lii mu nekk tey xam nga tey ñu ngi naan dafa jóge six cent cinquante cinq dem ci sept cent cinquante cinq mais kon day dem ba passé mille francs kon dina dem ba nekk presque mille cent francs super bi tam kon du duy nekk fii mu nekk 990 da koy dépassé dem ba nekk moom itam 1100 et quelque ba tegal. pourtant dañ jàppoon ne état day appliquer vérité des prix fi mu toll nii. déedéet appliqué ko état bi ba léegi mi ngi ci dugal loxoom. c'est-à-dire que 750 milliards yooyu mu defoon ci 2000 ci 2022 euh, da ciy génne 258 milliards. 258 milliards yooyu génnewu ko sax pour dugal ko feneen. da ko génne pour dugalaat ko ci secteur bi waaye dafa ne comme am na ñu bëgg taal ay làmp te mënuñoo taal ay làmp comme am na ñu bëgg courant te mënaguma yóbbu foofu courant bala ma koy def ci pétrole bi wala ma koy def ci super bi wala ma koy def ci gasoil bi parce que ñooñu am nañu ay oto bay ñëw di rang di ko def waaye naa ko jël xaalis boobu ma dugale ko ci ñoom ba ñooñu ma mën leen yóbbul courant fa ñu nekk moo tax may wax ni sama mbokk bi nekk Kër Thiar nga xamee ne mi ngi nekk ci biir commune na nga xamee courant rek la soxla Euh, ay méru dafa bu demee ci pomp bi léegi buy jënd gasoil dañ ko yokkal ñaar fukk buy jënd super dañ ko yokkal ñaar fukk waaye nag lañ ko yokkal ci lañ lay defalee courant kooku moom day tàccu parce que danaan man kat courant bi lay xaar mm-hmm. te ay méru xañ na ñaar fukk yooyu ñu koy defal du ma ñu diisul de waaye nag antan na ko loolu mooy wax bi mooy subvention boo xamee ni état bi da ko daan def tey nag mu ne dama koy wàññi parce que la may jël dama koy def ay investissement te gis nga booy seet ci wàllu koom-koom sax. moo gën a jaadu parce que subventionné kuy consommer bokkul ak nga jël loo xam ne alal la def ko ci investissement loo xam ne day yokk koom-koomu réew bi parce que adduna ba mu wër ba mu jeex bu ñu bëggee natt réew bu développé xam nga ni ñu koy nattee waaye mooy réew mi ñu fa dëkk ñoom boo leen jàppoon bopp bu nekk ñaata courant la ñuy consommer ci loolu la ñuy xamee. réew ma ma ngay avancé wala réew ma avancé wul kon nag suñu bëggee suñu réew avancé il faut accès universel boobu président wax mooy nit fu mu nekk ci réew mi courant mën ko bu bëggee courant bu mën koo am ah wax dëgg yàlla ñu defal ko ko parce que sama mbokk ma nekk daaru ngeer boo ko bëggee defal courant moom moom day d'accord parce que xam na ni courant boobu dafa am lu muy soppi ci dundam te day bëgg ñu defal ko ko kon nag état bi wàññi subvention bi jël alal jooju dugal ko ci foo xame ni nii dina indil ñoo xame ni xaaruñu ko woon wala mënuñu ko woon a am ñu indi leen courant defe naa loolu euh, jëm jëmu kanamu réew mi la. ñàkkee junj sànq Sénégal mu ngi xaar pétrole ak gaz est-ce que peut-être bu yegsee si si 2023 bi jafe-jafe yëpp mun nañ jàpp ne dafay jeex. waaw dina am lu ci wàññeeku. mais dama bëggoon ñu leeral foofu tam. parce que dañuy wax ne euh, barilu pétrole bu Sénégal bii jëkk ñëw. jàpp naa ni ñu ngi koy xaar bu ñu demee ba dernier euh, trimestre moom mooy maanaam diggante euh, novembre octobre novembre décembre gaz bi noonu xam ngeen nag production industrielle toujours dafay yéeg dafay tàmbali ci nii di yéeg ndànk-ndànk ba keroog mu yéeg ñun li ñu bëgg mooy ñu tàmbali production bi boo xoolee ci budget Sénégal d'ailleurs liñ ci programme yépp ci at bi soixante milliards lu jege 60 milliards xam nga 60 milliards boo koy xool ak par rapport ak suñuy bëgg-bëgg déjà euh, wuute na parce que dañu xam ne bu ñu tàmbalee noonu nag bu ñu demee 2024 nag xañ na dinañu monter en puissance bu boobaa budget bi dina traduire li nga xamee ni moom la ñu war a dugal jële ko ci pétrole dugal ko ci réew mais daal li mu am solo mooy gis nga fii il faut nga xool boo dee boo dee pays producteur de pétrole tey da bëgg pétrole bi yéeg parce que da nga naan lu mu gën a yéeg muy gën a am alal mais bu fekkee danga nekk pays boo xamee doo produire pétrole consommateur rek la yow da ngay bëgg produit bi wàcc foofu nag la ñu toll ñun fi mu nekk nii comme mënuñu wàccee pétrole bi parce que li xew ci àdduna bi dafa dafa daj àdduna bi yépp mooy ñu xool naka la ñuy orienter subvention yi ba eh, ki nga xamee ni nii war na fay lu gën a cher ñaar fukki dërëm parce que bu ñu doon def vérité des prix comme ni nga ko laajee woon sànq wax dëgg yàlla dina ëpp foofu waaye nag ñu jël ñaar fukki dërëm pour que euh, état bi mën a def loo xamee ni nii subvention la mais dina ci économiser loo xamee ni dina ko mën a jéeme waat ci biir secteur bi te boo seetloo bu baax gaz bi par exemple gaz bi nga xam moom lañuy ñuy toggee bëgguñu ko laal parce que gaz dafa nekk loo xamee ñëpp ko utiliser te tey mënoo wax ni kii laa koy jaay xam nga oto moom da ngay ñëw présenté wu ñu jaay la mais gaz moom boo ko boo ci appliqué woon cent franc rek Sénégal yëpp a koy yëg parce que ki néew dooleeg parce que boo koy dem jëndi. waaw moo tax xam nga gaz bu njëkk bi ni ñu ko daan séparé dañuy wax ni bu douze kilo bi day cher bu deux bi. famille yi ñoo ko moom bu 6 kilo bi famille ko moom kon da ngay yokk bu 6 bu 12 kilo bi wàññi bu bu bu 6 kilo mais léegi dem nañu ba ñëpp ñooy utiliser bouteille yëpp. loolu moo tax ci wàllu gaz bi ñu bañ ko laal parce que bugguñu laal loo xawee suñu ko laalee dina jeexital dina diis ci njaboot gi mm-hmm. alors jafe-jafe yi ñuy dund yépp mi ngi jugee genn wàll gi ci crise sanitaire pandémie coronavirus est-ce que tey dañu war a tiitaat ndax corona bi mi ngi jugaat fu mel ni Chine ñuy ragalaat euh, beneen peut-être euh, vague amaat euh, est-ce que tamit suñu état yi jotul ñu teel a jël ay mesures pour mm-hmm. gàttandu lu mun a am ëllëg waaw mesure moom dañ ko war a jël mais jàpp naa ne itam euh, lii nga xamee ni dañuy wax ni olof dafay wax lu la bett daf lay man gis nga coronavirus bi muy soog a ñëw ci àdduna bi yëpp kenn xam ko woon ñun ñëpp dañu jaaxle mais muy def ay dégâts parce que bu ñu demee naan jàngoro li rey ci nit presque mat na fukki millions yi nit ci àdduna bi xam kooku jàngoro bu mag la mais comme xamuñu nu muy demee. boo xoolee matukaay yi ñu jëloon mooy dañuy toog kër yi ñëpp toog mu loolu moo indi woon d'ailleurs plan de redressement bi mm. voilà économie euh, plan boobu mm. presse boobu loolu ko indiwoon woon mm. ba nga xamee ni dañu mujj wut ay cent mille mille milliards di ko jàppale ñi nga xam ne dañoo war a liggéey te liggéeyuñu ainsi gis nga loolu jàpp naa ni moom dootul amati parce que looy gën a dund ak euh, jàngoro da ngay am expérience xam noo koy moytu kon nag jàpp naa ne amatul benn réew boo xam ne tey mi ngi xalaat def confinement te confinement boobu nag dafa amoon vraiment lu mu impacté jeexital bu métti ci njaboot loolu moo tax mais nag du Sénégal comme yàgg nañ jël seen matukaay ci wàllu épidémie moom ku ne la ñuy wax waaye Sénégal moom lu ne jaar na fi Ebola jaar na fi yeneen xeetu feebar jaar na fi ñu mën a jël suñuy matukaay ba daanaka faagaagalul réew mi même crise bi sax ñuy wax ci euh, Covid Sénégal jël na ci ay matukaay yu bëri yoo xam ne yu am solo la dem nañu ba ci organisme internationaux yi ñu koy cité comme exemple kon nag loolu yaakaar naa dinañu continuer di ko jël waaye nag ragal bi ñu doon ragal comme ni mu amee woon ba mu xëy rek ni cëpp jàpp naa ne loolu dootul am du tee nag dañu fagaru moo gën faju waaw fagaru toujours moo gën faju alors ñu wax ci actualité nationale bi bokk na ci rapport IGE bu ñu nee dafa joxoñ Aminata Touré bi mu jiitee conseil économique social environnemental ci deux milliards yu nu joxtu ne dafa lu moom nag mu jàpp ni euh, dañuy wut rek ay pexe pour faagaagal ko ndax dafa déclarer candidature am yàggul dara mm. pour présidentielle 2024 ñu génnee rapport bi mm. lan mooy sa xalaat ci ci mbir moomu waaw suma xalaat mooy d'abord euh, dañu nekk ci réew boo xamee ni Euh, réewu Sénégal di réewu démocratie am ay institution mais am tam li ñuy tuddee ay corps de contrôle corps de contrôle mooy ki nga xamee ni d'abord at bu nekk dafay def programme am ni mankat ren fii ak fii ak fii bu dee IGE moom dañ koy présenter président de la République muy moom moo koy valider parce que foofu la ñu mm. inspection générale d'État mais bu dul moo am na yeneen corps de contrôle comme cour des comptes am na yeneen contrôle comme contrôle financier nga xam ni ñoom itam dañuy def ay contrôle dañuy nekk ci euh, nañ ko tuddee conseil d' administration yi bu ñu waree def loo xam ne jaaduwul ñu ne déet lii jaaduwul ainsi de suite ba pare di contrôler di rendre compte président de la république. corps de contrôle yooyu amul benn réew boo xamee ni mën nga ko ñàkk seeni programme itam bu ñu génnee rapport rek. nga ne dafa tombe déedéet parce que rapport bi dafa am liggéey bu koy jiitu kon jàpp naa li ñuy wax tey xëyul xëyri ni cëpp rapport bi wala mission ba xañ na bañ koy def xañ na mat na juróom-benn weer xañ na mat na ak ku mënoon xalaat ni ci jamono boobu xañ na lii xew tey ci diggante soxna Mimi Touré ak euh, parti bi mu nekkoon muy benn bokk yaakaar est-ce que ku mënoon xalaat li loolu dina am xanaa jinne rek moo ko mën a xalaat kon nag bu yu mel ni amee nañu moytu di ko politiser. nañu bàyyi corps de contrôle def seen liggéey surtout que corps de contrôle yu yëpp seen liggéey rapport contradictoire amul kenn ku ciy dem rek tëju bind rek daal di génn rek ni mi ngi nii dañuy wax ba pare yow mi nga xamee yaa fa ne ñu yónnee la ni la lii ñu wax loo ci xam gis nañu nangam gis nañu nangam gis nañu nangam may la nga tontu. soo tontoo ba pare daje wat waxtaan ni tontu bi doy nañu bu leen doyee boobu dañ koy dindi bu leen doyul ñu ne lii doyuñu daldi teg seen baaraam fi nga fi ñu yaakaar ni fii am na lu fi leerul loolu amee nag ba nga xamee leer leerul nag ñoom duñu tëj duñu jàpp dañuy fexe ba ñi nga xamee ñooy ëttu attekaay yi ñu yóbbu ko fa ñooñu ñooy atte ba xam loolu am na wala amul soxna si man damay wax toujours ni ci matière man dama respecté institution. dama respecté corps de contrôle yi itam yàlla daf ma may ma daan liggéey ak ñoom notamment la commission de vérification des comptes. ma nekkoon seen biir booba nekk ci délégation à la réforme du secteur parapublic di fekke kii fekkee nag xam nu muy demee am na loo xam ni waru ko dama ba bañ ñu politiser yi ku wax jëm ci yaa ngi politiser ku wax di weddi yaa ngi politiser. bàyyil corps de contrôle rek ñoom ñu def seen liggéey suñu génnee seen rapport nag rapport bi su fekkee ni léegi gis nañ ni am na lu ci nekk nag bu ñu koy yóbbu nag ca pour ñu atte la nag waaye yow boo amee loo mën a aaree sa bopp wala loo mën a défenser sa bopp nga dem défenser sa bopp foofu loolu rek moo moo ci am solo mais man pour man wax la boo xamee ni nii képp koo xamee yaa ngi wax di ko politique dañ ko def parce que par lii da yow yaa bëgg indi politique. waaye nag Cour des comptes am na droit fu kon fu fu ñu ko yónni ak foo xamee dem na fa parce que programme am daf ci nekkoon mu dem xool ko te xañ na sax duñu la tudd yow rek dañ lay tudd tuddaale keneen waaye nag ah man de loolu laa xam ci mbir mi. am na ci ay jegeñaale mu jàpp ne xëy na tey bu faxoon ba léegi ak benn bokk yaakaar rapport bi kenn du ko mës a dégg. non non parce que rapport rapport bi xam nga bu amee rek am na rapport moom bu amee rek am na. danga nga xam nga li mo li nga daan wax danga nga naan kon ñu ko fa yónni inspecteur dam te dama ni bañ ko fay yónni mm-hmm. boo xam wër na ma ni ma fa lu tax kon ñu yónni ko cest à xam nga programme dafa am loo xamee ni ay programme annuel la mm-hmm. loo xamee ni kenn mënul fexe ba inspection générale d'État du def contrôle mm-hmm. assemblée def contrôle euh, ku yeneen ak yeneen i organisme ak yeneen organisation ak yeneen institution parce que fépp fu alalu réew mi di dugg jàppale nañ ko saytu bi ci ëpp mooy budget état bi budget état bi nga xam ne dañ ko wote sax dañuy def li ñu tuddee la loi de règlement dañ état bi danaan dërëm bi fii la dugg bii fii la dugg bii fii la dugg xamul bu ñu ko indi assemblée lu ñu def dañ naan nañ ko yóbbu cour des comptes parce que ñun assemblée kat amuñu xam-xam pour vérifier hmm. nañu cour des comptes xoolal bu ñu xoolalee ba jox ñu rapport de conformité hmm. ni lii lii ñii li ñu wax dëgg la bu boobaa bu ñu ko indee ñu seet naka lañ koy wote mais feek waxuñu ko ñun duñ ko wote segam loolu kay ñu ngi koy def gouvernement mm. waaye rawatina nag ñu def ko koo xamee ni yaa ngi nekk yore institution. jërëjëf jërëjëf Aymérou Gningue amoon na nañu mbégte dalal si matinalu Rewmi FM tey fàttali yow yaa njiital conseil d'administration bu Petrosen Holding nekk tamit maire bu Mérina Dakar. jërëjëf euh, Fatou man euh, am naa mbégte ñëw fii tey ci suba gi waxtaan ak yéen waxtaan ak réew mi indi rek nag suma xalaat ak li nga xamee moom laa xam pour wecce kook nit ñi waaye nag def ko tam sans passion waaw mais wax rek li nga xame mooy laa jàpp naa ni mooy dëgg te mooy jariñ askan wi